jàpp naa ni journaliste dafay jouer rôle bu am solo te ñu ñu wekk lañu mais journaliste yi aussi ñu ngi leen di wax ni am na loo xam ni ñoom waruñu accepter sax ñuy encourager loolu nga xam ni moom mooy débat yooyu ndaxte président Macky Sall du man du kenn fii dañ ko jox réew jox ko jumtukaay jox ko lu koy aar votel ko ay budget kooku tey bu mënee jël ay nervi waxuñu aar ak biñ koy bi mu niñ moom lañ koy aar waaye gàkkal lay def sax suñu république ndax président waruta am nervi ba nervi yooyu ñu dem di dal ci askanu senegal di leen xawi seen worma gis nañu ñëpp gis nañu ay xale yu nekk ndar yor benn pancarte non au troisième mandat ñu fekk leen ci kaw wàcc leen ñëpp gis nañu ay nit ñu ñu dóor gaañ leen gis nañu ko jigéen ku ñu dóor ndar ba gaañ ko loolu rafetul ci askanu Sénégal même nit bu takkoon sax nekk takk der waru ko def waxuma laa koo xam ni amoo tey li nga xam ni moom mooy mission pour def sécurité tey bu nekkee dañuy tëkkale nag ki nga xam ni sénégalais la sécurité état protégé wu ko mu jël ay nit ni man damaa bëgg ngeen ngeen ma te kenn mosul gis opposition wala ku mu mën a doon mu am ay nit ñu dem di dal ci yeneen nit di leen dóor donc ñooñu ñuy wax nervi du ñu ay nervi ñooñu ay garde du corps lañu mais nervi mooy ñi nga xam ni dañ leen a fay pour ñuy dem dóor ay nit ñu yor ay brassard rouge parce que président moo ni du gis lu xonq pour ñi nga xam ne dañ naan non au troisième mandat ak ñi nga xam ni dañu ni politique yi Macky Sall di def ci seen gox yi ñoom gisuñu ci seen bopp donc ñoom ñoo lañ loolu ñun loolu lañu am comme définition nervi ñiy dal ci askanu Sénégal képp ko gis nag opposant boo xam ne dafa am koo xam ni dafay dal ci kaw ñu wax ñu ko parce que loolu amagu fi donc ñun nañu dindi suñu bopp que garde rapproché ak nervi ñoo yem Macky Sall ay nervi la yem la yor ñoo xam ni dañoo ñëw uniquement pour humilier ay nit ci boobu moom mi ngi am sécurité loolu nag loolu la ñu ni ñun dafay dakk parce que nag am na foo xam ne bu ñu fa tollee ku nekk da ngay jéem a sauver sa bakkan moo tax ñuy woo population Sénégal ni leen buñ ko accepté ti képp ku dal seen kaw na ngeen dal ci kawam képp ku leen dóor na ngeen ko dóor je pense que ni le mot d'ordre boobu ñun moom la ñu lancé wasalaam